mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. 140. troisième édition. bu gàmm gi dese ay fan nag. Euh, nit yi àddina yi ak nit yu diine yi. waaw préfet noonu wàcc. ak at suem euh, yaakaar naa ministre de la santé. léegi ñu seen ko mu wàcc incha allah ak stafam. Euh, noonu lañ koy defee ñëw di. nemmiku sëriñ bi andi seen i addi ak seeni i ziyaara ak seen gouverneur donc maa ngi koy seen noonu euh, xam nga bis bi moom bisu ñëpp la bisu Seydouna Mouhamed la euh, médecin chef région de Thiès maa ngi koy seen noonu moom it macha allah mu ngi ñëw euh, tey nag avant muy ñëw nag ay garab yu bari yaatu jiit na ko fi nu ñëw fas yéene moo koy wàcce ci oto bi incha allah sëriñ Abdourahim bu bàyyi Mori bàyyi Serigne Samba Gassou Seck ndeysaan xam nga canaba dañu fonk gan canaba dañu man gan waaw ba tax na nit ku ne dañ lay jox sa wàccuwaay ak naga toll euh, boo ko mel ni bu fi ñëw lu nit jàpp-jàpp dañu naa la ñëwal ngir yàlla euh, ak jox ko cëram ak wàccuwaayam euh, bàyyi Serigne Assane Seck yàlla na fi yàgg lool te ànd ku wér ministre bi xam naa Alaaji Ndiame ay minutes yu néew xam naa mu mu wàcc Baye xam naa ay minutes yu néew incha allah ministre bi dana wàcc xam nga Thiénaba seen gàmm dafa spécial ndax ñaari fan lay doon guddi Seydouna Mohamed bi ñoo ñëpp ñoo ko bokk waaye ci ëllëg am na téere bu ñuy jàngal Seydouna Mohamed ci ëllëg sa jeexal téere bi te la mujj ca téere ba kenn du ko kenn du ko jàng ku dul xalif général bàyyi Serigne Hassan Seck macha allah macha allah kilifa gaa ngi noonu kilifa gaa ngi noonu di wàcc góora dafa mel ni ministre moo wàcc noonu ah. waaw te te avant ñëw jiital na fi ay tranga yu mel ni wàllu ay garab est-ce garab yi doon ngeen demandé pour ni ngeen ko bëggee. ba am ngeen ci satisfaction. bu baax di sant yàlla ba sant daal lu ñu def lu pour cent. jàpp na ni daal wax dëgg yàlla waxantu ak ñun respecté nañ ko. kon nag sant yàlla bu baax. waaw ci sant suñu sunu maam ja al mu jaaxin maam Ahmadou Ndak Seck ndax lii lépp moom moo ko fàggul mm-hmm. mm-hmm. mais également président de la république mm-hmm. ci nga xam ne effort yi nga na ko ci wàllu santé jëm kon yéen ñi responsable la santé fii xel dal na ci gàmm gi sunu xel dal na bu baax a baax seen naalin di ñaan bu kenn feebar waaye jël nañ matukaay yëpp yu jëm ci wàllu santé ndax ku ne xam ne wér gu yaram moom ci ndaje mu mel nii du ci am solo la jël nañ disposition yi war jël yëpp euh, macha allah noonu dugg ci góor euh, Gora njaay bokk ci ñi sëriñ bi dénk wàllu wér yaram fii ci Thiénaba macha allah dégg ngeen ko nee na li ñu waxante woon ak ministre bi ci wàllu garab nee nañ def nañu lépp macha allah seen xel dal na li ci des mooy rek euh, santal ministre bi sëriñ bi ba mu xam ni li ñu bëggoon am nañ ko gis ngeen ko noonu. gis ngeen ko noonu madame la ministre mu ngi noonu toog. mu ngi noonu toog voilà mu ngi noonu agsi na ci saalu maam bi agsi na ci. Tening Faye ànd tam ak monsieur le sous-préfet Babacar Wade préfet doon na ñëw léegi mais dafa am benn ngant bu gàtt loolu moo tax yësul mu ne nañ ko fi teewal ñu ñu ngi fi itam ak adjoint sous-préfet ànd tam ak monsieur. l'adjoint au maire pour ñëw teew fii ànd ak madame le ministre Marie Xemes Ngom Ndiaye ci xeexoo bi ñu dëgmal muy màggal guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, dañu jox kàddu ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Faye nga xam ne moom moo yore kàddu gi am lu mu jiital suñu paree nag ñu jox ko madame le ministre. xam naa tey moom xat na lool ndax jaar nañu ci kilifa diine yu bari am na tam fu ñu desee ñu war a tam bu soobee yàlla ñibbi ndakaaru tam ndax suba tam ñu waajal conseil des ministres kon nag sëñ Saliou kaddu gaay noonu yàlla na ko yàlla may wér bàyyi ko njaboot gi xanaa rek tey bala ñuy tàmbali waxtaan wi ministre léegi rek la may wax ne ma bu duggee cene ba xelam yépp ci Alaaji Jóob lay dem daaw ñu nag moom a toogoon fii mu am cër yu mag ci kër gi nekkoon ci comité d'organisation bi yoroon commission sante nga xam ne ñun bala ñoo ñëw lu mu war a def dina ko ànd ak Bama Moussa ànd kook docteur Ndour ànd kook Assane ba lépp leer bàyyam yu tedd bëgg ci moom ba bu ñu ñëwaan kenn ku nekk ci ñoom di yëkkati ay kàddu yu rafet di ko jëmale ci moom kon bu ñu ñëwee ren fekku fekkuñu ko fi loolu ay njàngale la moo nuy won nañu kon bés dina ñëw mu yàgg mu yeex dinañu ko fekki kon mënuñu woon a bañ a tàmbalee ci Alaaji Jóob di ñaan ku tedd ki bala ñu fi jóge mu ñaanalal ñu ko ay doomam nag ñi ngi jokkook ñoom ñi ngi ñuy woo ñi ngi jokkook ñoom te it gis nañu ne la mu doon liggéey ay doomam dafa mel ne ñi ci te loola incha allah madame le taxaw na pour gunge leen jàppale leen pour bu ëllëgee kenn ku nekk ci ñoom la ngay yëngatu suñu borom am lu la ci may loo mën a indi ci njaboot gi waaye daal jàppale ne ah, tey daal ñëw tey bi moom alaaji bokk na ci ñuy manqué bu wér wér ci yëngu siburu la doon xeex. ku ne xam na li ko ci duggaloon suñu borom jël ko le lendemain bisu sibur 26 avril booba ma nga ñu waroon fekk karang ca bés boobu suñu borom jël ko kon yàlla mooy ay mbiram moo demee noonu kon dañu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yu kawe yi njaboot gi mu fi bay yàlla na ci yàlla teg loxoom suñu bay Assane ñi lay nuyu di la ziar di jël nuyoo ministère de la santé et de l'action sociale ci loxo ministre bi di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci njabootu Thiénaba gépp di la wax na la bi muy ñëw dafa ànd ak léegi la suma mbokk mi tudd gouverneur ak ñoom sous-préfet oo commandement territorial bi mu ne woon staff bi muy liggéeyal yépp nañu jóg ñu ànd ndax dañoo dëgmal ay guddi yoo xam ne soppe Mouhamed yépp dañuy génn kenn ku ci nekk di def la nga war a def waaye moom it suñu borom dénk ko volet santé mu war a am taxawaay yu mu taxaw pour kenn ku ci ne dëkk buñ koy defee war na faa teew xool doxalin bi xool waa kër docteur yafa ne la mu leen dénk ndax ñanga ca moo tax mi ngi ànd ak directeur de cabinet Alphonse Ousmane Thiaw mi ngi ànd ak conseiller technique numéro 2 Habib Ndiaye mu ngi ànd ak conseiller en pharmacie Aboubacry Sarr mi ngi ànd ak soxna Fatou Mbaye Silla mooy directeur général des établissements de santé public de santé mi ngi ànd ak soxna Aram Top seen moo yore direct mooy directeur général action sociale mi ngi ànd ak docteur Mamadou njaay moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu prévention mi ngi ànd ak Ousseynou Ngom moom moo yore DAGE bu ministère de la santé mi ngi ànd ak Amath Diouf kooku lu ñuy tabax ci wàllu hôpital moo koy saytu xool baaxaay ba ak qualité ba ak na mu war a mel ñi ngi ànd ak soxna Ndeela Konaté moom ci hôpital yi moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu qualité daanaka cet gaak hygiène gaak lépp moom moo ko war a saytu pour nit bañ faa ñëw di fa jële beneen feebar donc ñi ngi ànd ak Moustapha Fall moom ci direction action sociale la nekk yor fa beneen direction ñi ngi ànd ak euh, euh, docteur Leyti Ñing garab yii ci bunt bi moom lañu sasoon pour nañu fi garab yi jiitu laata noo ñëw docteur Leyti moomu moom mooy nekk pharmacie nationale d'approvisionnement ndax umpale wu leen ni ku neewoon ci suñu biir doon soxna Annette Seck barki dem bu président daf ko génn ca foofa def ko ministre kon kooka defe naa ni avancement la am ci wàllu nekk ñu ñaan ngeen ñaanalaaleel ko yàlla yokk ay xéewalam ñi ngi ànd ak docteur Mamadou Diop moo yor lutte contre la maladie ñi ngi ànd ak docteur wàdd SAMU national kooku ambulance yi nga xam ne léegi nii dafa nekk ci ministère de la sante ñu tudd ko SAMU national nga xamante ni bii léegi Sénégal foofi toll bu la dara dalee xaaju guddi te amoo ambulance bu la jege boo wootee quinze quinze ñooñu ngay jot ñu wax la ne la foo dëkk lu dal malade bi tëral ko nii taxawal nii ba ñëw ba jël si ko ba sa kër loolu docteur Wade mi ngi fii toog ñi ngi ànd ak lamin Baara Gaye kooku moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu communication ak sensibilisation ci wàllu wérgu yaram ak colonel Maodo Malick Diop moom moo yore service d'hygiène service d'hygiène ci daje yu mag yi daf ci am solo ndax xam nga war nañu dugg ci kër yi di dem ci dégg nga waañ yu mag yi ba pare it ndox yi ñu koy saytu camion yi fii indi ndox ndox mu ci nekk ñu xool ndax mënees la koo naan wala déet waaye nag di gën a wëlbatiku nag di teg loxo ci ñi nga xam ne ñooy dugg ci biiru bis biir gàmmu gi am njaay mu ñu yor lekk bu périmé ñu bëgg koo dugal ci biir nit ñi pour jaay ko xam nga day am yooyu nag service d'hygiène da koy saytu léegi rek bi ñu jógee Tivaouane ñu ngi won nañu jàpp nañu juróomi téeméeri kilo ak fukki kilo ak juróom ci lekk gu bon kon bàyyi xel ñiy jaay parce que tamit kii jaay lenn rek la bëgg mu jaral rek dem dëkku fi. yoon la te ñëpp fiy jaar dañoo bëgg li ko dalee euh, Thiès xombal boor yooyu yëpp fu ci nekk rek fu xumb xumb di am rek danañ fa teg ay ambulance ndax di ñaan yàlla nag kenn dara bañ a dara bañ a xew. di ña euh, di dinañ am aussi juróom-benni poste avancé cest à dañuy jël post bi bu dee dafa nekk fii post de santé bi dañuy jël beneen yóbbu ko ci beneen pegg yóbbu fa ay waa kër docteur. yóbbu garab ya tege noonu ngir mu jege nit ñi ku soxla mën a dugg ñu seet la seet li ngay def mais aussi am na taxawaay yoo xam ne dinañu ko am nga xam ne bu la loolu dépassé dañu di nga mën a dem Thiès ba loolu dépassé di nga mën a dem Tivaouane ba loolu dépassé di nga mën a dem centre de santé bu xombal mais daal ñaanuñu yàlla mu am ci benn dépassement mais nag dañuy fagaru rek ngir ëllëg beneen bi topp aussi mooy sensibilisation bi mooy waxtaan wi foofu nag xam nga ci la xel yi di demaat ci alaaj liggéey bi mu daan def taxawaay bi mu ci daan am loola Mamadou Lamine Bara Gaye a ngi fii Seneps ak ay équipe ñoom ñoo koy def ànd ceeg waa dëkk bi ñuy wër di wax di wane ay affiche di wane kii kenn ku ne xam fi ngay teg sa tànk ndax aussi sëriñ bi leen rek lay ñaan ujaa ji ñëw gàmmu ca ëllëg sa ñëpp ñibbi kenn dara bañ leen a dal ñi fi dekkit kenn ba dara bañ na dal comme que loolu rek nga ci jublu sëñ boo ñu ko ñaanalee suñu borom mën nañu cee dimbali loolu moom dañ la koy ñaan soxna si nag bi muy ñëwit nee na nañu fàggu rek lu jëm ci wàllu ceeb diwlin tamaate basang ak euh, lave-mains yoo xam ne pour raxasu la na am am na siwo yum la indilit ak ordu sawel ak madaar ak saabu am na yum la ci indil nee na xeeb na ko lool nag waaye nag loolu da koo def rek ndax xam ne cërëm la te dina ñaan nga ñaanal ko yàlla ba bu déwénee bu la fi fekk yooyu gën a yokk incha allah rabbi jërëjëf Seck man na comme que sa foofu la sama kii yem ma jottali soxna si rek li mu bëgg a wax man matériel bi rek lañ ma doon wax ak lépp di commencé nag ci sang bu tedd bi toog di suñu baay bàyyi seen Seck nee na ñu ngi lay ziar nee na moom ak ñi mu àndal ñëpp ne du leen limaat de waaye day jël rek madame le gouverneur ne loolu yëpp ci turu président Macky Sall la ñëwee ci la taxawee moo gouverneur rek ñi mu àndal ñëpp di la jox nuyoo bi ak premier ministre ak gouvernement bi yëpp nag. ne looloo tax ñu nekk ak gouverneur. nga xam ne tey lii ñu fiy dox si loxoom yii la ko yàlla teg moo koy doxal ànd ko ak docteur yeeg ñun ñëpp ñu ñëwoon nag doon ko saytu. ñu ànd ak préfet yi ak sous préfet yi. ak diwaan waa diwaan bi yëpp. ne mi ngi dolli rek di tàllal loxoom di sàkku ñaan. ne di ñaan tam suñu xarit. ne El Hadj Diop daf ñu daan jiitu ci liggéey bi. te yàlla moom ko tey. ne yàlla ko yàlla xare ci àjjana kaw yi. njabootam yàlla ci yàlla teg loxo. ne kilifa gi. ne sëñ bi. ne lii ñu fi teg lépp du dara lu dul gën a fagaru rek ne dañu ne fagaru moo gën faju ne ci fagaru bi ne gis nga place bi ci service d'hygiène am ne sensibilisation ak waxtaan wi ak population yi ni ci waa Sénégal si baara gay amee doole ne di wax yi nit ñi ni feebar di ñëwee ni muy tëddee nooy def boo ko amee nooy defit nag pour bañ koo am ne li ci gën a bari nag feebar yu bari mënees na koo dogale te du ñëw ndax prévention ne wax nañ ci lekk bi wax nañ ndox mi wax nañ nag ci dëkkuwaay yi waaye ne loolu yëpp am nañ ci yaakaar waaye du tere itam ne du tere yi tamit nag mu am feebar nag am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ba fii coono mooy tax ñu feebar. am ñoo xam ne dañuy ñëw xam ne dañoo feebar waaye mënuñoo bañ a gàmmu si. ñooñu tamit di ñëw te dara dot leen te xam ko nañu indaale garab yeneen docteur joxoon ñu mën koo fàggandikoo di ko naan. ne tàngoor bi nag ak duggante bi it mën naa yëngal feebar. ne am na ñoo xam ne tam ñi ngi doxaale feebar te xamuñu ko. ne mhm, ñooñu bu ñu ñëwee. bu ñu yëgee dara seen yaram. ne dañuy dem ci poste médical avancé yooyu ma leen wax. ne buñ demee nag lépp luñ fa war a fekk dinañ ko fa fekk. Ah, ne da xam boo dee feebar bi day wér wala mu avancé. wala mu yokk. ne dinañ leen yóbbu ci këru docteur bi gën a mag. fii Thiénaba centre de santé am na xombal. ñaanuñu ko yàlla bu saafarawul mën nañu dem ba Thiès ci hôpital yu mag yi mën nañ demaat feneen it fu gën a kawe. moo tax ambulance yi fiy teg feggoog waa croix rouge yi ak waa sapeur pompier yi ak militaire yeeg ñëpp ne ak ñi nga xam ne ñoom bu gàmmu amee mbaa xew-xew rek nu ñëw sol seen boobu blouse ñëw jàpp ci ñëw jàppale ñu. bañ dindi loolu. nee nag bu loolu yëpp weesoo. balaa boobu nee ak garab yi. nee garab yu am solo la. waaye nag nee du nag nit lu la neex rek ci garab nga naan. moo tax dañuy bëgg nag di contrôler ñeneen ñi fiy ñëw di jaay yeneen garab yu bokkul ak yoo xam ndax su noonu. ne nit rek mënoo xool ndax garab gi baaxul. mais pharmacien yooyu ñu leen wax nag dañoo jàng loolo. ne moo tax garab yii ngeen gis ñi ko jàng euh, ñi ko fi indi pharmacie nationale d'approvisionnement lañ tudd. te garab yooyu du dem fenn fulul kër docteur. loolu nag médecin chef de région bi ak équipe bi ak district bi yëpp. ak hôpitaux yëpp. xam nañ nu mu demee. ñoom xam nañ nu mu demee. moo moo tax ñu naan ñu yéen léeg-léeg da di tàng ndax ñun duñu bëgg garab yi génn foofu dem ci mbedd. ndax garab ni mu mën a faje noon noog la mën a loree. ne am na feebar yu bari yoo xam ne. duñu dañuy jaaxle ñun suñu bopp li laaj fan la jóge te mais waaye bañ ko xoolee. ne garab yu yàqu yi bokk na ci. ndax loolu dafa jafe seet. moo tax dañuy ñaan nag sëñ bi ak mbokk yi fi teew yëpp xew-xew yi mel ni su amee kuy indi garab te bokkul ci kër waa docteur nee na daal ñooñu jar nañoo wooy waa service d'hygiène sax wan leen ko ñu am lu ñu jëflanteeg ñoom. moo tax euh, son excellence président jox nañu lu doy ci garab. moo tax président bi jox nañu lu doy ca garab. ci période gàmmu gi. gi rek. lépp lu fi dal nit rek. muy faju du fay dara moom mais gën ci gën a ñaax population yi xam nañ ne Baye mi toog xam na fu mu xam nañ fu mu teg santé toujours dañ fi daan ñëw mais gis nañ ci waa santé gis nañ ni mu daan ñaaxee waa santé yi ne nga gën a ñaanal nag professionel yi nga xam ne nag ñooy liggéey ci waa kër docteur yi nag ak action sociale ndax liggéeyu santé metti na lool amul waxtu. waaye nag nga gën ñoo ñaanal. waaye nga gën ñoo ñaanal. ba suñu xel yi gën a dal xel yi gën dal. jàpp nañ ne ñun ñii faj. ñuy faj. bu suñu xel bu suñu xel dalee rek. dinañ mën a gën faj. dinañ mën a gën a faj doomu aadama ci jàmm ak salaam ne loolu daal mooy ay tànkam tey. jàpp nañ ne li ñu fi teg. ne jàpp nañ ne ñi fi bàyyi teg leen fi am nañ ci ñoom yaakaar. waaye nag tey nag sa ñaan. ne xutba yi nga nar def. dina dinañu mën a dimbalil suñu saafaraal ñu suñu loolu yëpp nag ne ñu ngi lay gërëm di la sant di gën a dolli nag ziar ne yàlla na la yàlla bàyyi suñu kanam ne nga am ndag wér nag ne jërëjëf sekk jërëjëf sekk loolu ah, di tàmbalee suñu nuyoo nag ci Baye Assane Seck ah, di Serigne Thiénaba ah, di ko ñaanal gudd fan ak wér Ah, waaye nag di nuyu aussi euh, ministre de la santé mi nga xamante ni moom déplacé wu na ñëw euh, ba biir Thiénaba di ko euh, ziar si ci guddi gi ñu jëm di gàmmuk Thiénaba ñoo ngi nuyu itam nag autorités yi mu àndal ah, di tàmbali ci gouverneur ah, di nuyu représentant sous préfet préfet waaye itam préfet ak euh, adjoint ah di nuyu autorités yi nga xamante ni yëpp ànd nañoo ñoom ah ñu ngi euh, wax sama papa ni ko waa santé seen taxawaay ci gàmm gi am na solo li koy firndeel mooy camion baa ngi nii bu PNA fees dell ak garab lañ waxante woon ñoom ci ak ñoom dañ ko sox yokk ndax ñun ñu ngi demandé woon dix million neuf millions lañu demande woon daaw ren nit ñi yokk ñu ne dix million ak onze millions eh, bi ñuy tudd onze millions dañoo dañ dañoo nañ wax loolu pour mën a am dix million yàlla def ñu def ñu ne ñu dix millions onze millions ngeen di am eh, def nañ chegub dix million dinañ dolli chegub un million muy onze millions ñu indil leen ko kon nag sama papa liñ demandé woon waa santé yëpp def nañ ko ñi nga xamante ni itam ñooy liggéey di tourner autour santé maanaam muy waa croix rouge muy waa service di d'hygiène muy euh, service sécurité yi ndax ñoo seulement service sécurité yi dañuy def la sécurité waaye aussi dañoo am tànk ci euh, santé euh, madame le ministre wax na ko léegi ah muy waa gendarmerie ak ñi nga xamante ni sapeur pompier ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk sa wàll ci côté santé sa wàll ci wér-gu-yaram sa wàll ci taxawaayu askan wi ñu ngi koy dox normalement kon sama papa euh, du ma guddal xanaa di la xamal rek nii garab gaa ngi nii yokk nañ ci sax loo xamante ni demande wuñ ko woon ndax médicament yi ceeb yim ci wax ci biir ak euh, yeneen ay meew yeneen yoo xamante ni tudd na ko ci biir camion bi indaale ko ñun garab rek lañ demandé woon garab yi ñu demandé woon nag nañ leen ko waxee woon ni dañoo bëgg ngeen boole ci waa comité organisation bi bis bu ñuy def choix bis bu ñuy tànn garab yi def nañ loolu kon nag euh, ñu ngi leen di gërëm di ko tàmbalee ci suñu euh, responsable yi nga xamante ni ñoo nekk fii euh, di ICP bi jëm ba ci centre de santé Xombol ah dem Thiénaba Thiès ñooñu ñëpp ku ci nekk taxaw nga na nga ko war a taxawee madame le ministre sa personnel bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm taxawaay yañ doon defar daaw yokk nañ ko ren taxawaay yi doon def day metti ndax liggéey ci euh, pays monde rural daa gën a jafe liggéey ci monde urbain euh, monde rural seeni moyen dafa bariwut da ngay jóge ci àll bi dem ci euh, fàq ci ngeer mi pour ni ma leen koy mën a waxe poussière bi jóg nga noyyi ko ñëw boo dikkee au lieu kon nga dem ca garab ga faju da ngay jël ci ngeer mi baxal naan yokkaat encore sa feebar ku mel noonu nag bu dikkee ci docteur day nekk day nekk presque day jafe lool en tout cas feebar ba day diis lool ci moom kon nag docteur yi fi nekk yi nga fiy indi eh, li ñuy jànkonteel ciy malade eh, eh, doy na waar doy waar goo xamante ni jàmbar dëgg ñoo leen mën a supporter jàmbar dëgg ñoo leen mën a faj ca noonu lañ koy defee ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ci seen i taxawaay démb ak tey surtout nag fi mu ne ñun daan sant nañ comité d'organisation li ñu laajoon lépp jot nañ te ku laaj nag ñu jox la sant rek moo ci war jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaye di sëtam may wax toujours ni nekk porte gi taxul nit ñi di ko tudd daa bokk ci deret ji ndax maamam Seydina Ibrahima Seck di way juru Serigne Jibi mi toog moo jur yaayam moom mii moom cena ba ba 73 muy ñaar fukki ak juróom-ñaar maamam moom na ko cene ba moom mi maamam ak xalifa bii toog ñoo bokk benn baay muy borom kaala gu jékk gii di maam Momar Talla góor gu mag tabaarakallaahu bu ko defee ñu déglu alaaji Ngagne Demba Sarr mu yëkkati kàddu xalifa bi ñi ngi nuyu islaam bi yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen jéggal te di leen jéggalu ci jataay bu rafet bii jataay bu tedd bii ci weer wu yaakaar lu wii weeru leer wii nga xam ni lépp adduna ci weer wii la baaxe mooy weer wi nga xam ni ci la sayiduna muhammad suñu sang gënee àdduna kàddu yi na ñépp yëg ni kadduk baay seexu cana bala toogaay bi toogaayu seexu canaba la ndigal li ndigalu baay seex canaba la niñ koy génnee yit ak xam-xam bi ak waxin wi ak jëfin wi ci ay façon la bokk sëriñ baa ngi nuyu ñëpp mi ngi ziyaara ñëpp mi ngi ndokkeel ñëpp ngeen fekk fi njabootug sëriñ bi bi sëriñ Gueye di lim fa tabaarakallaahu nee ñii la madame la ministre àndal. bi ko déggee. bi ñu ko déggee. xam na ni yoon wi yitteel. xam na ni yoon wi yitteel na soxna si lool. waaye bi tam noonu la bi tamit yoonam wi noon la ko yitteel ak teeru bi mu leen teeru. mu fekk fi njabootam ngeen fekk fi njabootuk sëriñ bi yëpp. bàyyi seex jibrilu sekk. bàyyi seex jibrilu sekk. nga xam ne tey mbooleem sëti seexu canaba yi. moo ci mag ne ci ginnaaw moo ci mag ne ci ginnaaw xalifa bi. mi ngi nii toog. ànd ak rakam yëpp ànd ak rakam yëpp. Serigne Samba Gasso Serigne Samba Gasso Seck. di doomu xalifa bi. mi ngi ci biir jataay bi. Serigne Alassane Niane di chef de village su dëkk bi. nekk vingt cinq ans. mi ngi nii toog fa tabaarakallaahu. Serigne Abdourahim Seck. bu bàyyi Serigne Mori. mi ngi nii toog. Serigne Abdou Seck. di magu di magu doomi bàyyi sëñ bi. di magi ba doomi bàyyi sëñ bi yëpp. mi ngi nii toog way juróom ak Serigne bi bokk ndey ak fa tabaarakallaahu sëriñ Ibrahima Seck di xalifa baay sëriñ Abdourahim baayam jóge fi bërki démb moom ak ay rakam ñu ngi nii toog njabootuk baay sëriñ bi di ay doomi boppam sëriñ Maajooja Seck sëriñ Moussa Sëñ Mbay ak seeni rak ñu ngi nii toog fa tabaarakallaahu ngeen fekk fi président Abdou Ñing nga xam ni mooy coordonnateur gàmm gi bi jox ko communauté rurale bi nga xam ni communauté rurale bi tey di meeru Thiénaba nekk yor na ko juróomi at moom mii yor na ko juróomi at euh, nekk expert nekk expert maritime fa tabaarakallaahu sëriñ bi jël gàmm gi jox ko ko mu nekkaatam au conseil mu nekkaatam au conseil nekkal fi bàyyi sëriñ Thiénaba ca ba nekkal bàyyi sëriñ Thiénaba ca barab ba moom it mi ngi nii toog ànd ak secrétaire am sëriñ Ibrahima Silla way juram ak sëriñ bi ñu bokk wenn way jur ngeen fekk fi itam ngeen fekk fi itam doomam xaritam professeur Souleymane Dia di secrétaire particulier bu sëriñ bi di professeur ca université kon fa tabaarakallaahu sëriñ bi nee na mi ngi sant mi ngi sant mi ngi gërëm mi ngi ñaan la yàlla waaye nag yoon wi day yoonam docteur mari Xemes Ngom Ndiaye day jarbaatu sëriñ bi ñi fi ñëw ñëpp. ñi fi ñëw ñëpp. kontaan na ci kontaan na ci de. wante yoon wii waaye sa yoon wii. jarbaatam nga jarbaatam nga. ndax maam faama ngom. moo meññ sëriñ bi. kon ñaari ngomeen kon ñaari ngomeen. ñu bokk famille ñoo fi daje tey ñoo fi daje tey. kon jàppal ni fii nga toog kon jàppal ni fii nga toog. sa kër nijaay la sa kër maama sa kër sëriñ la. kon sëriñ bi nee na kontaan na. ngeen fekkaat fi njabootuk sëriñ bi. tabaarakallahu euh, sëriñ Gora Ndiaye mii jiite comité de santé bi ànd ko ak Babacar Ndiaye ànd ko ak Babacar Ndiaye ñoo ngi lay seedeel ni liggéey bu rafet a rafet lañ fiy liggéey docteur Ndion yor euh, yor poste de santé yor poste de santé bi. bëgg bàyyi sëriñ bi lool bëgg sëriñ bi lool. taxawu sëriñ bi lool. fu sëriñ bi soxlaa. wala kilifa gu sant sekk. danaa leen bàyyi ma ñëw ba ci néeg wala gu santul sekk sax tey mag ni ci dëkk bi danaan ba leen ma ñëw ba ca néeg ba. def ko ni ko bàyyi sëriñ bi def ko ni ko sëriñ bi bëggee. kon bàyyi sëriñ mi ngi la koy seedeel kon sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel. docteur Ndour docteur Ndour. fa tabaarakallaahu yor hôpital ba ca. yor euh, hôpital ba ca xombal. moom tam bàyyi sëriñ bi ba ca kaba ba ci sëñ bi moom it ñi ngi koy. bi ci xombal bi ci xombal. bàyyi bi mi ngi lay seedeel moom it sëriñ baa ngi lay seedeel ni li ko war ci moom lépp. li war ci moom ci digganteem ak sëriñ bi. mi ngi koy def mi ngi koy def. docteur Diaw. docteur Diaw. fa tabaarakallaahu yor Cees yor Cees. moom itam ñu ngi lay xamal moom itam ñu ngi lay xamal ni. lépp lu ko war ci digganteem ak sëriñ bi. def na ko def na ko. bàyyi sëñ bi sëriñ bi. gan gi toog gan gii toog. day kilifa baax lool baax lool yiw lool tedd lool moom daa jël santé muy néegam santé di ëttam santé di salon am santé di péncam santé di léppam ba mu génnee université. bi mu génnee université. 1991. 1991. en docteur data médecine. en docteur data médecine. boobu ba génnul ci santé. boobu tey génnul ci santé. mu nekk première femme. mu nekk première femme. bi ñu nommé. bi ñu nommé directeur de la santé. directeur de la santé. depuis octobre 2017. depuis octobre 2017. mu jàpp ci liggéey bi mu jàpp ci liggéey topp ci liggéey bi topp ci liggéey bi. fukki at fukki at. nekk na ko fa nekk na ko fa. kilifa gu fi mës a aw. mu ànd ak moom ci bàyyi Serigne Thiénaba ba xam ruq-ruqi santé yi nit nag day am parcours day am parcours parcours day ànd ak compétence day ànd ak compétence mooy rafetal liggéey bi waaye fidélité sincérité loyauté day ànd ak kilifa ba mu wóolu la kilifa gu fi mas a nekk ci santé musu koo yàqal dara ne ci ginnaawam rek jàppale ko dimbali ko dimbali ko jàppale ko mu uh, uh, def ngor gu mat sëkk keroog bi Ablaye Diouf Sarr di pare mu toppoon ci ginnaawam te mag soo bëggee lu mu waddal nga for ko da ngay topp ci ginnaawam teey ànd ak dal loolu moom mii moo ko war moo war loolu bi rapport yi ñëwee yiñ mën a gis ak yiñ mënta gis ak wax yi ak xalaat yi bi poste bi ñëwee biñ ci diisoo ñu xam ni moom mii na ko mën na koo yor tërbiye na ko xam na ruq-ruqaat yi xam na karaw poqotaan kare yu bopp yi ba lépp baax kon Serigne baa ngi lay sant madame la ministre Serigne baa ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla fa tabaarakallaahu kon jataay bii Serigne bi kontaan na ci Ablaye Diouf Sarr na ñëpp seede ni Serigne bi gërëm na ko Serigne bi sant na ko baara mi ngeen di lim léegi baara mi ngeen di lim léegi daaw daaw ñetti ñetti délégation ñetti délégation la yónnee fii lépp lu ko waroon def na ko boobu njaboot nga waaye njaboot gu attan gu ne ci ginnaaw kilifa doo ko rëkk doo ko kuccal yëgul ni sa ginnaaw sax ne ba ndax ci kaw lépp rafet moo waral sa jataay bi bi xalaat jibee rapport yi jib président de la république xoolaat mbir yi lëj mbët ko xam ne yow mi doomu sante nga biñ la fi tegee ba léegi yëf yi am nag dal nag yàlla na gën a am ak dal sëriñ bi kontaan na ci yow bu baax mi ngi lay ñaanal mi ngi lay ñaanal bu baax. ndax nag ministre yi bari nañ. wante yow mii kese waaye yow mii kese nag. yaa ciy jarbaat yaa ciy jarbaatam. jarbaat nag jarbaat nag ak nijaay nag. la ca ne la ca ne xam nga ko. nee na soxna Ami Kolle. sëriñ bi nee na soxna Ami Kolle Ndiaye. day jarbaatam doomu alxaaji ma dikke njaay day jarbaatu sëriñ bi day sëtam day sëtu sëriñ bi maamam maamam ak baay sëriñ bi ak baay ñoo bokk wenn wayju mi ngi la koy dénkaat mi ngi day doomu kër gi sëriñ baa la koy dénkaat dafa am ay taxawaay ci ëttu maamam bii day def action sociale lu fi xew ak nu mu fi xewee na dooleem toll ci kër maamam mu jëfe noona kon sëriñ baa ngi koy sant di la ko dénkaat ñi ngi la koy dénk gouverneur de la raison gouverneur de la raison madame la gouverneur madame la gouverneur euh, madame Faye madame Faye sëriñ baa ngi lay sant baa ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla réunion yi ñu doon def nga ne ci wetu kilifa gi gis nañ ni nga koy jàppalee ci ay xalaat ak ay déy déy ba lépp baax yàlla na yàlla taxaw la yàlla na yàlla sàmm la yàlla na yàlla def ci yow barke yàlla na yàlla def ci yow promotion li nekk ci sa xol xam nga ko yàlla na ko yàlla def sàmm la ak sa njaboot préfet département Kama Moussa Diagne Serigne baa ngi koy gërëm mi ngi koy sant ñi ngi la koy seedeel Babacar Wade le sous-préfet day doomu Serigne bi di xaritu Serigne bi ñu nekkoon ñoom ñaar ca Gosaas mu liggéey fa liggéey bu rafet déglu Serigne bi jàppale Serigne bi wan ko lépp lu mu war a teg ci ginnaawam ba lépp rafet yàllay dogal Serigne bi nekk xalifa général bu Canaba yàlla def ba ñu indiwaat ko ci wetu Serigne bi. la mu doon bay foofa ak doon ko fa ji mu nekk ci wetu sëriñ bi di ko dimbali di ko jàppale ñoo ngi la koy seedeel monsieur si sëriñ baa ngi lay gërëm sant na la yaa ngi nekk ci wetu kilifa gi li la ci war yaa ngi koy def sëriñ bii toog nag ñoo ngi leen di seedeel ni ku baax a ngi nii ku tedd a ngi ku dox wax jëf ba am mérite ci tariixa bi ak ci diine ji ak ci ngor gi ak ci pas-pas ci réew mi ba toog fii Baye Serigne Assane yal na yàlla taxawu la Baye Assane yal na yàlla may la ndam Baye Assane li tax nga toog fii xam nga ko xadra bi xam nañ ko xamal nga ko sa bopp yal na yàlla gën a may la ndam jox la résultat barke kër gi barke tarixa bi barke barke barke barke borom tarixa bii ak Seyduna Muhammad mi nga xam ni moo tax ngeen ñëw délégation bi ànd ak madame la ministre képp ku fi toog ci yéen sëriñ baa ngi ñaan yal na yàlla faj sa aajo yal na yàlla faj sa yal na yàlla faj sa aajo. barke weer wi barke weer wi soxna si soxna si. kaddu yi kaddu yi. la bàyyi sëriñ bi waxoon sëriñ bi waxoon ni. nañ la ko jooxal nañ la ko jooxalal. ànd ak mbégte li ma sawoon lépp li ma sawoon lépp. daa bari daa bari. damaa naqarim xel te mënuma koo génne. nam ko bëggee woon sax mënuma koo génnee noonu. waaye ñoo ngi lay seedeel ni. sëriñ bi daal kontaan na. président Macky Sall président Alhaji Macky Sall. sëriñ bi sant na ko ci ay taxawaayam ci kër gi ministre de l'intérieur sëriñ bi sant na ko ci kër gi ak ay taxawaayam li njaboot gi am li njaboot gi am ci ay yaakaar président am ko ci ay yaakaar ci santé ak li aju ci santé te mu aju ci sa jëmm sëriñ baa ngi ñaan yàlla na lépp gën a rafet yàlla na ànd ak jàmm yàlla na ànd ak sutura yàlla na ànd ak xel mu dal mayoro sëriñ bi gërëm na la sant na la fa tabaarakallaahu coordination bi ak diplomatie bi ak ni nga koy doxalee rafet na lool sa liggéey rafetlu nañ ko yal na yàlla def jàmm ak sutura ak xel mu dal sëriñ bi nee na doomam xaritam alxaaji Jóob na ko ñëpp bàyyi xel sëriñ bi nee na lii ñaar fukki at ak juróom mu taxaw kër gi ci gàmm ak ci sibiru ak ci feebar ba kër gi lépp ne leew ñoo ngi la koy seedeel yal na yàlla defal ñu jàmm ak sutura ak xel mu dal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ministre bi yow ak ñi nga àndal. Baye Seexu Canaba ne mu ngi leen di wax asalaamualeykum. ne maa ngi nuyu soxna su sell sii. ne su ma la waxee kontaan na. wax naa la loo xam. waaye xam nga ni kontaan naa. ne fii. daara la. daara nag. daara nag. du rëy. ba ëpp daara. ba ab xalifa. jóge ca gott ba. jóge ca gott ba. ne jaarul ci seesu jàng. jaarul ci seesu tubaab. ñëw toog. doog a ñëw toog. loolu. loolu. dafa cate. daa cate. waaye. man. li ma gis. soon bi yëpp dox naa ko. bi yëpp dox naa ko. fu bari. ci Afrique. waaye. waaye. sunu gouvernement. sunu gouvernement. ni saytoo njabootam. ni saytoo njabootam. saytoo ko diine. di ko saytoo diine. fekkuma ko nee fekkuma ko ci menn réew. man dox naa te nag dox naa lu xaw a bari tuuti. waaye sunu gouvernement. waaye sunu gouvernement. ni mu saytoo njabootu ni muy saytoo njabootu boppam. saytoo ko këri diine yi. di ko saytoo këru diine yi. fekkuma ko ci ko ci benn zone fenn. ne fii ci Canaba. ootu naa fi juróom-ñetti xalifa. naa fi juróom xalifa. waaye. waaye. gouvernement. li mu indi ci sama loxo. li mu indi ci sama loxo. ñetti fan yii. ñetti fan xalifa yi ma wuutu. xalifa yi ma wuutu. àgguñu ca woon. lu bari ñëw ne lu bari ci teraanga ñëw na. ministre de l'intérieur. ne bi ma yebalee équipe bi équipe ci ñoom ñu dem fa. lu ma tuddoon. lépp lu ma tuddoon. mu nangu ko mu nangu ko. mbaa tuut moo ci des. nee ñun nag. doomu soxna rek lanu. ba nu juddoo ba fii mu ne. mësunoo jàng. mësunoo jàng. mësunoo laaj yàlla. mësunoo laaj yàlla. lenn. lenn. lu dul nan la ñuy ñaanee. foo war a jaar fan lañ war a jaar ñaan. ba man ko. ba man ko. loolu rek sama dund gépp ci jàng loolu ci laa ko def. dong dara dolliku wu ci ne lu ca dolliku ŋàbb saab gopp xëy ca tool ya gontu ñibbisi naan sama kafe nee nun xamunu leneen xamunu leneen waaye taraanga waaye taraanga sunu gouvernement xam na sunu gouvernement xam nanu ko xalifa yi ma wuutu. xalifa yi ma wuutu. lépp. amu ci kenn koo xam ne. amu ci ma indil fii. ci xeeti teraanga. mas nga cee àgg. mas nga cee àgg. loolu nag. ne loolu. cant ci ak cant rek moo ci war. la ma waxoon ministre de l'intérieur. lépp. teew na ci samay loxo. lu ma bindoon Macky Sall. lépp lu ma bindoon président Macky Sall. tuuta ca des. nee tuut moo ca des. xam naa ne te xam naa. daanu ca àgg. daanu ca àgg. ndax ma bàyyi xel. ndax bàyyi na ma xel. bàyyi ko ko. bàyyi na ma xel. nee président bàyyi na ma xel. ba wax mu fekk ma fii. loolu daal. nee loolu daal. mooy li ci am. waaye damaa dese nee dese woon naa tuuti. dama am nee dama am ab hôpital ca Gosaas. man yett cana yëpp. nee yett cana ba yëpp. cana ba yëpp. cana ba yëpp. yemb na ci sama loxo. dafa yembandoo ci sama loxo. benn xalifa mësu te benn xalifa mësul am loolu. da ngay moom da ngay moom bii. ndono li ndono li joxu la bee. waaris bi joxu la bee. waaris bi joxu la bee. man damaa dox lépp. man nag yàlla dafa def ñett cana ba yëpp. maa ko yilif. penc yëpp. penc yëpp. mu ngi sama loxo. te li ma gën a dolli li ma gën dolli coono. bi ñu yëgee sama xarit la. ma toogee ñëpp dañu ne xaritu Serigne Assane Seck ba moo nekk président. ku ma doon ci àddina. ku mu doon ci nga itteewu ci moom. ñëw ci man ñëw nga ci man. wax ma wax ma. looloo tax saab yan diis. looloo tax saab euh, ne. ba fa ne. ba fa ne. dama ko noonu mu bind mu bind la lañu manqué lépp. dama ne woon nañu bind la ñu manqué. ñu jox ko Souley Gueye mu ñëw. ñu jox ko Souleymane Gueye mu ñëw. ak ndogal ñëw. ak ndogal ñëw. mu génn mbooloo mi dem. mu génn mbooloo mi dem ca. waaye hôpital ba. waaye hôpital ba. la mu soxla daa xaw a bari. la xaw naa bari. ca na ba Gosaas fa la nekkoon ba xilaafa gi daf ko moom. mu ñëw fii mooy dëkk bi nga xam ne foofu la nekkoon. li li may wax nii. préfet Wade mii. préfet Wade. moo ma ko gën a xam ko gën a xam. yilif na ko ñetti at. yilif na ko ñetti at. lu fa lu fa ne xam na. lu fa ne waaye lu fa nekkul xam na. waaye damaa bëggoon. waaye damaa bëggoon. su gàmm gi jàllee. su gàmm gi jàllee. nga mayal ma njaboot gi audience. nga mayal ma njaboot gi audience. déglul ma leen. bu ñëwee nga déglul ma leen. su ko nee su ko defee. loo ca mën nga def. lépp loo ca mën nga def ko. nee danaa la ñaanal yàlla. yal na yàlla dimbali leen. waaye dëkku diine. ne su ko wilaaya sañcee. nuy jàng alxuraan. di tudd yàlla. di def salaatu ala nabi. ne boobu dëkk. lijaaba du fa tuxoo. pàkk bi. pàkk ñaanukaay la. ne soo fasee. pas-pas bi nga ñëwee cana ba. départ sa kër. raxas sa xol. dëkk yàlla say loxo. jëm canaba. nee pas-pas boobu. nee sooy ñibbi. moom rek ngay yóbbaale. nee dëkk bi nag. nee dëkk bu ñuy nangoo ñaan la. am na benn waay bu fi mës a ñëw. seet si bàyyi sëñ Mouhamadou li Seck. ñëw ñaari yoon gisu ko. tawat ku sëñ Ousseynou xaar rakkam. mu ne ko yaw de waay sa xalaat guddul demal ca buntu jàkk ja rek nga taxaw nga taxaw tàllal ñaan ci barke pàkk bi ci barke pàkk bi sa fekk la fa ndonga la def loole ndonga la def loolee yitte ja mel ni bal nit dina ñëw fii di ne ma sëñ Assane léeg nit ñëw ñu ma sëñ Assane li nga ma ñaanaloon nangu na la nga ma fekk du man place ne place bi nangukaayu ñaan la waaye sippikaayu bàkkaar la ne nit day toog ba yàgg kilifa jóge Dakar gaare ci buntu jàkka ji duñ ko laaj turam duñ ko wax fan nga dëkk mu ne ana yilimaan mu ne maa ngi nii ñu andi jox ko mu ni ko man damaa tooñ sama borom bëggoon ku ma teggil samay bàkkaar ñu dugg ak moom ci jàkka ji dóor ko dóoru yoon bàkkaaram wadd mu génn dugg oto dellu duñu ko laaj nan la tudd duñu ko laaj fan la dëkk nee dëkk bi daal dëkk bi nee dëkk ñaan la wax naa ko toujours. gone goo fi gis. gone goo fi gis. musol ab dongri. musol dongri. kanam nga set. kanam nga set. kurus ga ne ca poos. ca poos ba. poosu dongri ba. poosu dongri ba. kanam nga sëq. kanam nga sëq. kanam nga sëq. nga xool kanam gi set. nga xool kanam gi set. baayam noppi na ca. baayam noppi na ca. ci teg ko ci yoonu turu yàlla. teg ko ci yoonu turu yàlla. ba yeewi ko. ba yeewi ko. bala xal ko mu dem. soxla ci dëgëral sa yaakaar. soxna si sëriñ baa ngi wax ni nga dëgëral sa yaakaar. ne fii. yàlla du fi jànni kenn. maa ngi nuyuwaat mbooloo mi. maa ngi leen di sant. maa ngi leen di gërëm. ne na ngeen xam ne sant naa président Macky Sall. ministre l' intérieur. ndaw yi ma yebaloon ci moom. fépp fu sama làmmañ jaaroon. la teewal nañ ko te gàmmu gi ñëwagul nee li ngeen teg sama loxo xalifa yi ma wutu kenn mus caa àgg kon na kontaan naa maa ngi nuyu ñëpp maa ngi waat ñëpp yàlla na ngeen am yoonu jàmm yàlla na yàlla gunge leen ba ngeen àgg mu toog ci seen wet wettali leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi tàllal leen loxoy te wax amin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 noo ngi fii ci buntu kër Baye Cheikhou Thiénaba euh, vraiment ministre de la santé dafa yebal ay ndaw euh, Cheikh Saliou Cheikh Saliou Dieye mu ngi àndoon ak docteur Ndion xam naa bu ñu leen joxe kàddu gi ñoom daañu gën a yaatal euh, ba xam lan moo leen fi indi ak taxawaay ak wàccuwaayu gàmm gi ak li nga xam ne moom la ñu indil Baye Serigne Thiénaba ci macha allah ànd ak seen sunu doom sunu xarit Gora Ndiaye sëñ saaliw xam naa dañu njëkkante waxtu wi rek jox la kàddu gi macha allah nga wax délégation bi ak ni ngeen ko composé. asalaamaaleykum euh, nuyu nañ leen leen ñëpp maa ngi tudd docteur Cheikh Saliou Dieye euh, nekk pharmacie assistant à la pharmacie régionale de Thiès waaw comme ni ñu koy doon defee saa su ne comme ni ñu defee chaque année euh, daaw nekkoon nañ ci valeuru neuf million de médicaments fii si Thiénaba ren nag def nañ valeur onze millions euh, pour jàppale ko waa Thiénaba si turu ministre de de la santé euh, par le biais aussi de la PRA de la région de Thiès ñëw nañ tey teewal leen fii pour indi leen dotation médicament mu ngi nekk autour de valeur euh, onze million médicament yoo xam ni tey gàmmu gi bu commencé ba keroog muy jeex ba fii ak doyen buñ ko sàmmee dina des te yàlla na yeex kenn bëggul ku feebar pour feebar tamit dinañ ko faj incha allah rabbi waaw loolu daal la amoon nu wax di leen jaajëfal di leen jéene tamit gàmmu jàmm incha allah waaw li ñaan tamit sëriñ bi fi nekk yàlla may ko gudd fan ak wér gu xanaa nu wax leen ni doomu njabootu sëriñ bi yëpp nag teeru nañ leen ndax taawam sëriñ Madior Seck xam naa mën na ñëw tuuti sax moom la yebal pour mu ñëw réceptionnel ko garab yi ak tatagalal ko gan ñi euh, moxaddam yi ak doom yi ñoom ñëpp euh, teew nañ ngir yàlla ak seen délégation bi waaye comme coordonnateur moo doon jëflante ak yéen moo doon essencante ak yéen dañ koy bàyyi moom it euh, mu wax ñu ndax li mu waxoon ak ñoom ak li mu gis ñoo méngoo Euh, bu paree tam teg ci ay kàddu yu cantam en tant que coordonnateur joxel ko sëriñ bi waaye joxel ko gàmm gi mais joxel ko taalib yëpp incha allah président Abdou Diouf ah jërëjëf Ibrahima ah jërëjëf docteur euh, ñu ngi sant bu baax euh, di tàmbali suñu cant nag ca kilifa ya ca kaw député ministre ba. Euh, wàcc ci euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk Thiès di docteurs yi waaye wàcc xombol wàcc ba ci euh, ICP bi nekk Thiès Thiénaba ah ñun suñu xol sedd na li nga xamante ni waxan nañ ko ak yéen def ngeen ko wax nga ko léegi daaw neuf million lañ demandé woon ñu indi neuf million yi ren ji yokku nañ ndax population bi daa yokku ah demandé onze million onze millions yëpp ñëw na mi ngi nii ci camion bi ci suñu ginnaaw li ay garab yoo xamante ni ni ñu ko waxe woon noonu lañ ko defee ah nit nag bu waxee jëf ko danga koy sant euh, li nga xamante ni itam loolu lañ leen waxoon ni balaa ñëw nañ ci impliqué xool ba xam suñu comité d'organisation bi bokk ci biir def nañ ko euh, def nañ réunion xombal ah waxtaane ko euh, def commande yi commande yi ñëw ni euh, mu waree kon nag ñu ngi gërëm bu baax di sant bu baax euh, di sant itam nag euh, non seulement le ministre de la santé waaye aussi waa PNA e bi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw ah jiital ci seen kilifa Annette Seck di ko nuyu bu baax ndax heure bii daaw ñëwoon na ah, ren ji itam xam naa ni xolam a ngi fi ah, yéen ñii la yóbbu muy seeni ndaw te nit ki da koy jàppe ndawam kon nag ñu ngi leen di gërëm di yóbbante suñu nuyo Euh, ci docteur Annette Seck ah ñu ko xamal ne garab yi PNA yi ñëw nañ ah nañ ko waxe woon la accès noonu ah, sëriñ bi nag sant na ci kontaan na ci euh, di gërëm nag bu baax ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le terrain euh, di gërëm itam docteurs yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon daaw ak ñi ñëw ren jii ndax dañoo nekk ci monde rural dañ ci ñoo xamante ni bariwuñu am am ci nit ki bu bariwul am am feebar da koy yomb